responsabilité de qui. mais mais de l'opposition de, de Ousmane Sonko principalement. mais kii moom moom moom moo général non écoutez nga xam nag yéen tamit yéen tamit journaliste yi yéen tamit il faut may mën a yéen tamit. ba leen di ñu attaqué non non leen mais dañu leen bëgg rek. ngeen wax laaj si non mais. attends lu ñuy wax ñun ay enquêteurs lañ mais c'est une évidence. <laughs> waaw mais ñun ay enquêteurs lañ mais c'est évidence non. dañ ne gouvernement dafa ne même le gouvernement euh, désigner le responsable de ce euh, de de cette situation là nga bëgg ñu ne journaliste ñu désigner ko. ñoom ñi am la police et la gendarmerie. comment ça kan moo fi wootee euh, nu mu tudd cooki fin kan moo fi woote à l' insurrection. waaw mais kon kay la la la responsabilité elle est. cooki fin insurrection mais sur des événements qui se sont passés à l'université mais partout dans le pays. nan nga gouvernement bi mais gouvernement bi désigné wu Maymuna Maymuna insurrection ko ñu ñu ciblé. donc des je veux dire des des des des des des entités stratégiques et sensibles attaqué ko mais d'ailleurs xam nga lan la ñu waroon a toppee ces la attente atteinte à la sûreté de l'État li ñu doon waxal président de code mu ngi soog am Sénégal nag. lan la ñu a toppee. naa ni ñoom la ñu war a toppi Sonko ñeneen ñi nga xam ne ñëpp laal nañ ci c'est ça la vérité ah. waaw mais yow li nga yow fi nga ci fi nga ci parce que l' état gouvernement bi sax yegsiwul foofu xoolal man waxum man newuma gouvernement je suis plus au gouvernement moi li may wax li ma analyser li ma dund li ma fekk li ma gis le le ñi nga xam ne woote nañ foofu mais su yeneen pays jeexal nañ ko damay def <laughs> su doon dëkk yi pare nañ ci parce que leta état nag mu ëpp doole ñépp laa la wax et suñ continuer nii dinañ am loo xam dinañ ko regretter ëllëg te loolu lépp Sénégalais xamuñu loolu ñu loolu. il est de la responsabilité de l'État de prendre ses dispositions pour que lii fay benn yoon mu jeex suñ ko deful ay regret rek moo ci topp. alors li ngay wax noonu da ko teg sur des certitudes. Oh, xam man dama laa wax man dama laa wax loo xam ni no écoute man dama laa wax. wala wala wala wala dafa mel ni li ñuy constater aujourd'hui rek li li li ñoom euh, euh, l'opposition di di di constat bi ñuy def. Euh, dafa mel ni on s'entend. ban opposition. tout le monde s'entend. ah ma ne ban opposition. opposition bi nga xam ne. radicale non opposition non non opposition radicale c'est une ah, opposition. opposition radicale et nekkoon di opposé de Macky Sall. donc man je les appelle ah, opposition. ah la daal su fekkente ni daal opposition la. ñi nga xam ne ñoo jël deuxième topp ci président de la république. Ah. nekk dans l'opposition newatuñu au pouvoir c'est ñun. mais nous on a une républicaine. alors. nga ne ñi ko def dañ leen war a traduire devant la ah justice ah l'État doit prendre ses responsabilités haute cour de ah justice pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État waaw ko teg ci yenn preuve nga ko teg yow ñoom ñoom ñoom amaguñu tegaguñu dossier xoola ñoom seen i ñoom nag ñooy xool mais am na y a des faits y a des faits qui attestent de cela maintenant il est les dispositions pour que loolu bañ fa amati wax nañ ko mais aussi am nañu assez d'éléments pour que li ma wax ni ñu certifier ko maintenant si ñoom ñooy apprécier